من زنني خير خديم المصطفى فإنني أقدم بما استفى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi ñuy déglu te di seetaan bu ngeen gisee jataay bu barkeel bi xam ne ndigal bàyyikoo na ci xalif seneral de kullu murit sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa Mbakke ñëw ki sëriñ Ahmadul Maxtaar may Cheikh Moustapha waaye ñëw nag ci sëriñ Moustapha Mbakke Mohamed may xalifa sëriñ Mbakke Soxna Lo waaye nag ñëw ci alxaaji Baye sëriñ Mbakke Guèye may xalifa sëriñ Mabé Guèye ak mboolem njabootu sëriñ Mabé Guèye gépp waaye ci ndigal ak ci kilifteefu sëriñ Mabé Guèye mi nga xam ne tey. moo toogee jataayub alxaaji sëriñ Amsatu Gueye Ngathie bis boobee nga xam ne doomam ju baax ja sëriñ Moustapha Gueye ca Touba Sam nga suñu ablatif bis ba mu daan woote fukki fan ci weeru baraxlu bisub ñaan bisub sant bisub delluwaat njukkal sëriñ Touba Cheikh Ahmad Bamba waaye nag di ci fàttaliku ay maamam di ci fàttaliku waay juróom bu baax wii nga xam ne bis bii ci ndigalam ak ci kilifteefam lañ ko daan woote muy alaaji am Amsatu Gueye moo ko ci ko waale bis boobee nag moo waral jataay bii bis boobu nag Serigne Moustapha Guèye di ko woote di ko yëgal mbooleem njabootu Serigne Touba gi yëpp di ko yëgal mbooleem seex yi yëpp wul kenn di ko yëgal taalibe yi ak dayri yi ak association yi ak mboolem foo xam ne xarita nga fa wala wëlëre Serigne Moustapha Guèye mi ngi li ko yëgal bis bi nag Serigne Moustapha Guèye doo ko tuddee Serigne Makhtar Omar Sylla waaye nag dara jaale ko Serigne Mara Guèye moom Baye Alaaji Serigne Mbacke Guèye dara jaale ko it Serigne Ibrahima Thioub jànkatu xasaayit moo tax Serigne baa ngi yëgal ñëpp daanu yëkkati kaddu gi jox ko sëriñ Ibrahima Guèye moom sëriñ Amsatou Guèye mu wax ci turu sëriñ Moustapha Guèye bu noppee daanu yëkkati kaddu gi jox ko sëriñ Pape Faye mu wax ci turu taalibe yi bu noppee daanu yëkkati kaddu gi jox ko sëriñ Bàcci ann mu wax ci turu sëriñ Makhtar Omar Sylla bu noppee danañ jox kaddu gi sëriñ Mbaye Guèye mu wax ci kaddu njabootu sëriñ Mabeye Guèye gépp kon daal ñu déglu kaddu yi. aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi taslima bokki jullit yi ñooy teewlu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi nuyu mboolem bokki jullit yi di leen siyaare di leen balwaq di jiital ci nuyoo bi saahibul fadila cheikh mahamadou ngeen muntaxa di ñaan yàlla suñ borom mu yàggal ko te wéral ko noo ngi yëkkati kàddu ci kilifteef ak ndigalul alxaaji sëriñ Bàkki Géey mi nga xam ne moo toog toogaayu sëriñ Maabey te nekk ci bopp mbooleem seex yaaju si kër seex Muhammadul Moustapha waaye ci kilifteefu sëriñ Mabey géey mi nga xam ne moo toog toogaayu sëriñ Hamsatu di borom kër gi. nu yëkkati kàddu gu ko ci seex Muhammadul Moustapha Guèye ibnu sëriñ Hamsatu moom sëriñ Mabey Guèye muy fàttali bokki jullit yi ak bokki taalibe yi ni ko seex Muhammadul Maxtaar waxee. bisul islam boobu nga xam ne baaxoo na koo taxawal ci ndigalul kilifa yi muy bisu sant yàlla ak ñaanal way jàmbaari lislaam ji sëriñ Mabé Guèye ak sëriñ Mor Xasso muy bis boo xamante ne bii dongo yi nga xam ne dañoo nekk ci daara ji di jàng alxuraan ñi nga xam ne ci la ñuy wattu ak ñi bind kaamil at mu nekk ci la ñuy daje ak seeni wayjur ñu jébbule kaamil yooyu nga xam ne moom la ñuy bind ñi nga xam ne ci la ñu wattoo ñu tari ñu delloo ñi nga xamante bi ñoo war a dellu seeni wayjur yëpp bis bi it sëriñ Moustapha mi ngi ciy woo mbooleem jullit yi di ci woo mbooleem taalibe yi umma islamique bépp bàyyiwut kenn fu waay nekk di jiital ci woote bi mbooleem seex yi aju kër seex Mouhamadul Moustapha tam bokk ak ñoom Daaru Xuddoos di ci jiital mbooleem njabootu Serigne Mabé yëpp bàyyiwunu kenn di ci woo mbooleem jàngkati alxuraan yi ak jàngalekati alxuraan yi di ci woo mbooleem jàngkati xasida yi di ci woo mbooleem ñuy waxtaane mbaaxu Serigne Touba gi ci njiitul Serigne Gana Messere Maxtaar Ahmadou Serigne Abdou Samad Mbacke ibnu Serigne Sohaybu di ci woo Serigne Mamoun Mbacke ibnu Serigne Abdoul Ahad Serigne Khadim Basir Mbacke ibnu Serigne Abdoul Ahad Serigne Cheikh Abdou Mbacke Serigne Sohaybu Koso Serigne Salihu Mbacke ibnu Serigne Mbacke Soxna Lo Serigne Cheikh Mbacke ibnu Serigne Abdou Latif Serigne Fadilu Serigne Mbacke Soxna Lo Serigne Cheikhouna Mbacke ibnu Serigne Cheikh Diaye Abdoul Ahad Serigne Modou Mbacke Farmata Sam Serigne sekhul Khadim ibnu Serigne Sidi Mbacke Serigne Mamoun Bousso Imam sëriñ Muudu Maamun Jaxate sëriñ Maamun Jaxate Baye Serigne Diop mi nga xam ne moo jiite mboolem section yi nga xam ne ñoo aju ci ay Baye Xadim te nekk fii ci Touba Serigne Maam Serigne Maam Balla Mbacke mi nga xam ne moo nekk fii ci Saam di jàngalekatu alxuraan di Serigne bu mag. Serigne Baara moom Serigne Cheikh Baara moom Serigne Baara Xuraji Serigne Ahmadou Mbacke Saam moom Serigne Fàddilu Soxaybu ak Ndam Mbàkke ibnu Serigne Abdoul Hakaram ibnu Serigne Afia moom it kër gi kërama ma Moustapha mu wax ne mi ngi ko koy fàttali ak mbooleem njaboot gi yëpp bàyyiwunu kenn ak mbooleem jàngalekati alxuraan yi ak mbooleem jàngkati xasida yi ak jullit yëpp Serigne Moustapha mi ngi leen ci woo di leen xamal ne bis ba bisu lislaam la bisu jàng alxuraan ak xasida la bisu istixfaar la bisu salaatu ala nabi la bisu fàttaliku sunu borom la bisu delluwaat ci alxuraan ak delloo njukkal ndaw yi nga xam ne ñu ngi wattoo ci daara ji jàng fi alxuraan ba mokkale fi di yëkkati kàddu wooteem googu nag di ko woote ci ndigalul kilifaam sëriñ Mabey Guèye moom sëriñ Amsatu ak mbooleem ñi mu ko bokkal ñëpp di ci woo mbooleem waa presse bi bàyyiwunu kenn di ci woo mbooleem communicateur traditionnel yi ak mbooleem ñi mu bokkal lislaam ak ñi mu bokkal sëriñ Touba di ci woo mbooleem bokki taalibe yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yéen mbokki jullit yéen mbokki taalibe yi fii ñu toog nag ñu ngi toog si ndigalul Serigne Moustapha Guèye maanaam bis bi nga xam si moom leen di waajal muy tombeek fukki fan baraxlu wi moom la ñuy waajal di ko soññi mbokki taalibe yëpp moo xam ñi nga xam ne nekk bitim réew ak ñi nga xam ne dañoo nekk si biir réew mi ñu leen di koy soññ bu baax a baax ñoo xam ne bis boobu nag sunu bis la moom lañ am képp koo xam ne yàlla def nga ñëw fi ñu ngi fi ñëwal ku ñëw fii la ñu fekk ku demit fi la ñu war a bàyyi loolu mooy li nga xam si mooy ndigal li si Cheikh Moustapha di ko soññi mbooleem daayira yëpp mbooleem daayira soppi Seydina Ahmed yëpp ñu ngi leen di koy soññi di ko soññi daayira yi nga xam si ñoo nekk si biir dëkk bi di ko soññi maire mbootaay ñoom ñëpp ñu ngi leen koy soññi bu baax a baax a baax wasalaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di sox suñuy kàddu si kàddu yi jëwri di fi jaar rek muy bis bi nga xamante ni moo lay waajal muy bis sëñ Moussa Gueye yom ak fukki fan si baraxlu bi euh, ñu ko tudde ko sëriñ Maxtaar Omar Sylla sëriñ bi woon ñu dem fa keroog mu jox ñu digal di soññi mboolem taalib yi nga xam ne ñoo aju si kër gi di soññi mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal kër sëñ Mata Marama Sylla góor jigéen baa nga da bàyyiwul kenn di wax ne bis bi daal fonk na ko fonk koo xamante bi mi ngi si woo mboolem taalib yi ñu wax ñu waaj ko euh, ndax jànk jàpp na ko te fonk na ko ndax suñu Moussa Gueye cofeelam si moom tuddee ko ko euh, cofeel googee nag daa bëgg mboolem koo xam ne soppeem nga wala taalibe nga rawet na ñu bokk nga xam ne kàddu soññee la ak kàddu waajal bis boobu noonu nga xam ne suñu Moussa mu dudul moom ba pare yëkkati ko tuddaat ko sëriñ bi sëriñ bi si woo ñëpp ñu waaj ko nanuy waajee bis nga xam ne mooy bis boppam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bismillahi wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalina sayidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam ginnaaw buñ santee suñu borom tabaraka wa taala julli ci yonent bi di ñaan Cheikh Mamadou Muntaxa sunu borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér di ñaanal sëriñ Mbàkke gi xilifaab sëriñ Mabéye sunu borom yàggal ko fi lool ak sëriñ Mabéye moom sëriñ Amsatu ak mboolem njaboot gi bu ngeen gisee jataay bu tedd bii nag ak njaboot gi nga xamante ni danoo toog nii feggoo ak ñun ngeen xam ne ndigal daf noo jot ndigal loolu nag bàyyi ci sëriñ Mabey Guèye mi nga xamante ne nii moo fi toog jataayub sëriñ am satu Guèye te mate ko sëkk ginnaaw bi fi way juróom yi bàyyi ko lépp li nga xamante ne nii way juróom yi batale woon na ko ko lépp mu taxaw ci taxawaay boo xamante ne nii mat na sëkk ñu jote ndigal ci moom nag ndigal loolu nag bàyyi ko ci alaaji sëriñ Mbacke Guèye mi nga xamante ne nii moo di xalifa ab sëriñ Mabey jaar ci sëriñ Cheikh Mbacke Guèye mi nga xamante ni daf di rakkam jaar ci Serigne Mara Gueye mi nga xamante ne nii mooy mbooleem kilifa ak njaboot gi yëpp ak Serigne Ndiaye Gueye mi nga xam ne mooy jëruñu liggéey yi nga xam ne mooy bàyyikoo ci kër gi yëpp ndigal loolu nag bu ngeen gisee jataay bi mooy bis bi nga xamante ne nii moom la Serigne Moustapha Gueye mii nga xamante ne nii doom la ci kër gi jëwriñ la ci kër gi lépp ci kër gi woote bis bii nga xamante ne nii yàgg na di ko woote ku miin jataay yi kër gi miin nga ko muy bis boo xamante ne nii bisab lislaam la bis la boo xamante ni da ciy fàttaliku ñaari way juróom muy Serigne Mabeye Gueye ak Serigne Mor Assou Badiane tey jii nag sunu waajur yi nga xamante ne nii daf daan ànd ak ñun liggéey bi di Serigne am Gueye tey jii ñu dugal ko ci lim boobu nga xamante ne nii moom lañ doon fàttaliku waajur yooyu jiitu woon di maam ya Serigne Amsatou Gueye moomu dem dabi leen ñu di ko boole ci liggéey boobu nga xam ne moom lañ daal liggéey ak di ko ñaanal waajur ya ñu di ci ñaanal Serigne Amsatou Gueye ak mbooleem njaboot gi nga xamante ne nii ñoo di way dawle yëpp bàyyiwunu kenn Serigne mi nga xamante ne mooy eh, xalifaab sëriñ Amsatou géey nag bàyyi ko ci sëriñ Bakki Gueye mi nga xam ne mooy xalifaab sëriñ Mabey nee na ñu ngi woo njaboot gi yëpp bàyyiwunu kenn njaboot gi ci biir réew mi njaboot gi ci bitim réew Bawal Kajoor Saalum bàyyiwunu kenn ñu ngi woo ñëpp sëriñ Bakki Gueye mi nga xam ne mooy sëriñ xalifaab sëriñ Mabey nag nee na mu ngi woo képp koo xamante ne nii bokk na ak yow ëtt bii nga xamante ne nii mooy daar Xuddoos di ahi bàyyil xaddiim ab naaw suyoox sëriñ Bakki Gueye nee na bàyyiwut kenn mu ngi woo ñëpp ci bis bii nga xamante ne nii bis la boo xam ne bis yëpp ñor na ko waaye bis bii ñor na ko kon nee na mu ngi ci woo ñëpp bàyyiwut kenn fu fi waay nekk ak fu fi waay toll ku dégg woote bii na nga xamante ni nii mooy woote b alaaji sëriñ Mbàkke Gueye bi nga xamante ni nii doomam ji di sëriñ Moustapha Gueye feggoo ak magam ji di sëriñ Mabi Gueye di xalifaab sëriñ Amsatu Gueye sëriñ Mbàkke Gueye nee na mu ngi woo ñëpp ci turu sëriñ Mara mi nga xamante ni nii nag moom la ñu dara jaale bis bi ba noppi muy kilifa ak njaboot gi yëpp kon sëriñ Mabi nee na bàyyiwut kenn mu ngi woo ñëpp fu waay nekk ak toll ñu ngi lay woo di sàkku képp ku fa teew li nga xamante ne nii moo di sa yitte moo di sa bëgg ci saayir ak baatin yana la sun borom saafaraal loolee barkeb yonent bi barkeb Seex Ahmadul Xadim Xaadim Rasul barkeb sëriñ maa bi sunu way juróom sëriñ maa bi it wax na ne mbooleem daayira Silatu Rahim bi ñi nga xamante ne nii ñoo nekk ci biir réew mi ak ñoo nekk ci bitim réew ci kilifteefu sëriñ Mara Guèye mi xamante ne nii mooy kilifa ak njaboot gi yëpp nee na mu ngi woo ñëpp fi fi waay nekk daara yi nekk ci biir dëkk bi ak daayira yi nga xamante ne nii ñoo nekk ci biir dëkk bi te di daayira yoo xamante ne nii ci ne nii mooy soppee Seydina Mohamed yi Serigne Mabey nee na ci ndigalal ci Serigne Moussa Gueye nga xamante ne nii mooy woote bis bi nee na mu ngi woo ñëpp bis boobu nag mu ngi tom tomboog fukki fan ci weeru baraxlu wi kon képp koo xamante ne nii dégg nga woote bii te bokk ci kër gi wala ngay njabootu kër gi ak foo ci bokki ak noo ci bokki nee na ñu ngi la ciy woo di ñaan sunu borom tabaraka wa taala ku fa teew sunu borom fa say aajo saayir ak batin asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi woote baa ngi noonu di tombeek fukki fan ci weeru baraxlu di tombeek weeru mars le 13 wala le 14 te Touba Sam goog Serigne Abdou Latif Serigne Moustapha Guèye moom alxaaji Serigne Amsatou Guèye nee na mbooleem Serigne daara yi mi ngi leen di woo mbooleem jàngkatu xasaayid yi ak duruskatu xasaayid yi ñu ngi leen di woo rawatina nag bisba dañ cee jagleel daara ji jataay bu am solo boo xam ne ñi nga xam ne dañoo mokkale ci daara ji danañ feeñal seen yéene ci cérémonie officielle bi cérémonie boobee nag ginnaaw bu nu jullee takkusaan lañ koy tàmbali kon sëriñ baa ngi koy yëgal ñëpp di fàttali mbokk yi bis bi ñi ngi ko tuddee sëriñ Maxtaar Silla moom sëriñ Omar Silla waaye ñi ngi ko dara jaale sëriñ Mara Guèye moom bay sëñ Bakki Guèye mi xalifa sëriñ maa bay Guèye di jëwriñu seex yi Daaru Xudus yëpp waaye dara jaale ko it sëriñ Ibrahima Thioub jànkatu xasaay it ñëpp xam diggam ak sëriñ Moustapha Guèye kon sëriñ bi nee na bàyyiwul dëkkandoo yi xarit yi wëllëre yi am di jàmm yi képp koo xam ne mas ngaa am lante ak Serigne Moustapha Guèye mi ngi lay yëgal bis bii nga xam ne moom lay amal fukki fan ci weeru baraxlu du tombeeg le 13 wala le 14 ci weeru mars fii ci Touba Sam goog suñu Abdou Latif bàyyiwunu kenn bàyyiwunu fenn bàyyiwunu ñenn Serigne baa ngi séentu ñëpp aqdimu ila duxulil janna دار الخير والمنى والمنى من زنان ويكون أبدا يردي بالذي كخدمتي بدا